asalaamaaleykum Assane nuyu nañu. maaleykum salaam ñu ngi lay fay. lu loon tey sa teewaay fii. ah teewaay bi kay ku nekk xam na ko aar xewle aar woote surtout keppaaru maam kon duñ def lu dul teew rek. waaw noonu la ban relation nga am ak ki nga xam ne tey moo ma programme bi muy Ibrahima Mbaye Sopé. waaw Ibrahima Mbaye Sopé suñu relation ak moom wax dëgg yàlla ku ne xam na ko ndax métier bi moo nu boole mu nekk koo xamante ne ku yaatal la wax dëgg yàlla mu ngi defar pusoom di ñëw macha allah. te da koo def ba nga xamante ni moo tax daf koo teg foo xamante ni bu wootee foog nit ñu bàyyi lépp lu ñu jàppoon ñëw wuusi ko ndax ca xol ba la ndax dañ na soppe kon soppe soppe askan wi la kon c'est normal ñu teew waaw mi ngi noonu. gars yi wax naan euh, yéen artistes yi jubóowoo seen biir waaye tey ku gis tey programme bi xam ne yéen ñëpp benn ngeen parce que yéen ngi kaf yéen ngi ree yéen a ngi kontaan depuis démb ba léegi ba suba la programme waaw dëgg la gis kër sax kër benn famille boo duggee am na ñoo xam ne peut-être du neexoo mais artistes yi xaaj bépp juboo nañ waxtaan wax waxtaan wax dëgg sa la juboo mënta am fen déggoo mënta am fépp tey bokk sax ma déggoo dama koo dàqal tey foo dem fu ne am na ñoo xamante ne da ngeen di déggoo waaye bokk leen dara te wax dëgg yàlla rafetal na moom ah dégguma ko ciy ñàkk fayda macha allah moo tax bu wootee dañuy ñëw waaw artiste yi nag jubawunu loolu wax ji yàqu la kër sax boo ci duggee am na ñoo xam ne neexoowuñu waaw yàllaay def loolu balaa ñëw tëj rek euh, ñu lay fàttali ak li nga xam ne moo xew ci dëkk bi fi ne ni xelu nit ñi jaxasoo na xol yi neexul ak xale bi nga xam ne barki démb moo njaay lañ ko fi kidnappé ba yàlla dogal na sax mu feeñ euh, ban ban leçon nga am pour joxe ko ak ban message nga am pour lancer ko waa da di sant yàlla ci côté boobu comme xale bi feeñ la ni sant yàlla jamono ji mu li ko waral yooyu yëpp ñaaw yooyu yëpp di am yu bon yooyu nga xam ñu teg suñu bët li ko waral mooy dañuy commencé perte suñuy valeur ñu Sénégal lu mel ne ngor jom fulla fayda yooyu moo ay kersa yooyu moo fi jeex ku ci nekk nag alal jaral alal jaral lu ne te fii lu mu ci loon lu ne da ngay daw ba dee bàyyi ko fi ana sunuy maam danoo daw ba am bàyyi fi mbébét sunuy bàyyi sunuy mag sunuy ñoon ba ñun kon de looy def seet sa diggante sa borom te xam ne àdduna dara jaru ko lu mu neex neex na ko fi ba te boo dee tamit mën naa am perkaal ba lay ma la sax pour yóbbal mën naa bañ a jar sa xaalis keneen mën na koo jënd kon lu ko fi jar loo yóbbaale dara waaw kon mi ngi noonu. jërëjëf Assane merci. waaw yéen jaa ngeen jëf ca kaw ca kanam ci lu baax seen yow li ngay cadré yaay xaj.